di Adja Soxna Xadi Daraame génn dem bitim réew andil nu ndam lu rëy lim nu andil nga xam ne juróom-benn fukki réew ak nangam ñoo fa daje woon yàlla def mu def juróom-benneelu place ba au niveau national au niveau national mondial waaye jël deuxième au niveau région euh, euh, continental loolu xéewal la goo xam ne yàlla dañu ko xéewale jaarale ko ci moom nuy sant d'abord ay way waajuram yi nga xam ne ñoo ko dugal ci daara ba mu indi Sénégal ndam lii waaye di santaale ci en même temps surtout sëriñ bi nga xam ne moo ko jàngal nga xam ne daaw bi ñu defee concours bii ji moom moo jël première mais même daara ji nekk keneen moo fa jël quatrième au niveau national kon jaaraama sëriñ bi nga xam ne moo jàngal euh, soxna si muy soxna Mbayang Cissé euh, bu loolu weesoo fédération moom taxawaayam yaakaar naa ne kenn dootu ko laajte ndax depuis 2008 ba léegi yaakaar naa li mu réalisé ci li jëm ci jàngum kenn dootu ko laajte waaye dañoo xam ne daara ji soxna si génne ba indi lii ñàkk ñàkk ay moyens nga xam ne ci day day tax xale rek su fekkoon tey maanaam nit ñi jullit yi jàppale nañ ko ca baxal ko daara joo xam ne ji méngoo na ak li résultat bi mu joxe la fa war a nekk nekk nekk fa yaakaar nañ ne danañ andi résultat yu gën a rëy yi mu andi kon ñu ngi woo képp koo xam ne ab jullit nga waxuñu sax ku dëkk Louga mais ku di lu jullit ci biir réew mi ak bitim réew mi daara ji xale bii génne nga dugal ci sa loxo ndax soxla nañ ko lool lool lool ci wàllu tabax ci wàllu ay matériel ci wàllu ay ay ay matériel moderne loolu soxla nañ ko leen jàppale euh, daara ji daara moderne la waaye euh, du daara moderne ndax bi ma génnee dem du Dubaay li ma leen wax mooy yóbbu leen ma ci daara yi fi nekk biñ ma yóbboo ci daara yi fa nekk li ma fa gis mooy daara yu mucc ayib yoo xam ni xale yi fa nekk ñi ngi euh, dund ci dund goo xam ni bi ma ko xoolee dama doon bëgg a jooy par rapport ak suñu daara yi euh, daara yi coono yi ñuy jànkonteel ñu dem ba mën a génnee ñoo xam ni ña nga xamee ni ñi ngi tëdd ci ay climatiseur di ay xale ci daara ñooñu munuñu leen kon ñun gàcce nga la ma sunu sëriñ si nga xam ne ñoo fi nekk di jàngale bu ñu amoon moyen yoo xamee ni mel na ne moyen tuuti rek waxuma climatiseur sax waaye ventilateur rek suñ ko amoon yaakaar naa sunu xale yi seen jàng dana gën a mucc ayib euh, seen jàng mi bu ñu ma ci jàppale woon jàppale yeneen sëriñ yi ci Sénégal gépp seen jàngale dana mucc ayib man damaa yokk yore école sama borom daara alxuraan sama borom kër yore école français sama borom kër chaque année bu école di tijji loolu dama ko naqarlu ba taay dañuy ñëw gouverneur ba day ñëw ñëw wër école am école français yëpp dañ koy wër jardin sama borom kër dañ fay dem te moom sama jardin ak jardin am dañoo wute maa ko ëppalee donga fopp moom da koy ñaxtu ni man li tax nga ëppale ma dong man ko yàllaa ëpp doole waaye ñun nan la ñu mën a nekke fii gouverneur yi di wëri daara yi di di wëri école yi daara yi ñu seppi ko teg ko ne loolu mooy li ma gën a naqarlu nga xamee ni jàppale gi nga xamee ni dañ koo war a am jàppale fédération bi amuñu boobu doole nit ñi ñoo war a jël ñoo war a vol def jël seen matuwaay bopp jàppale daara yi dëgg-dëgg jàppale li ñu jàppale du jàppale xale yi tëdduñu ci lu lu baax ndax ay kër yu xat lañ nekk man maa ngi nekk ci ñeenti daara yoo xamee ni dama ko luye ci ci Louga ndax bañ benn peeru xat-xataay bi nga xamee ni moom la xale yi dund ci daara ji xale yi yëpp fi ñu li ñuy dund te taxul ñu dund ci dund ko baax de kon ñooñu dañ leen a war a dimbali dëgg-dëgg dimbali dimbali leen nag man mënumaa nekk Louga di jàngale bu yàgg ba tey ëpp ñaar fukki at Eh, amul benn autorité bu xam sama place fi man fi mu nekk lool lool lool lool lool dafa dafa doy waar te tiim man tim sénégalais la sénégalais yi laay liggéeyal bu fekkente ni ñu ngi liggéeyal sénégalais yi sénégalais yi ci boppam ñoo ñu war a jox ak ñëw topp ñu seet suñu ndongo yi ndax suñu ndongo yi la ñu nekk dafa metti néeg yi ñuy tëdd day xat xeeñ da ñëw war a nag di ñëw di jàppale leen ci néeg yi bu leen gouvernement yi mënut a jàppale ak autorité yi personnel personnalité yi nga xam ne bonne volonté lañ mel na Cheikh Abdoulaye Dia ñooñu dañoo war a def ay volonté si seen bopp ñëw di dimbali daara yi ndax doomu daara yi nag ci dëkk bi la ñu bokk te sonn nañ sonn koo xam ne nag ku ko waxul nag da nga ko joxoñ waaw mais ñi ngi ñaan état bi waxuma sax maanaam euh, euh, dimbali xale yu mel nii seen njàng continuer mais dañoo bëgg bu ñu ñëwati ndaraay mais dañ ñi ko am ci ci àdduna bi yëpp premier ministre moo leen di gàttalu ji wala ministre de l'éducation nationale wala personnel bu rëy ci état bi ñi ngi ñaan état bi nañ jël seen matukaay wax dëgg yàlla lii nag bu nit jógee andi ay ay maanaam jógee ay maanaam ci football jël deuxième képp wala mu jël troisième wala jël dara sax ñu dem terre ju ko lu mel ni ñu am ko ci alxuraan am ko ci adduna bi te benn autorité du fa taxaw loolu noo ngi koy ñaawlu noo ngi demande ci monsieur président mairie ñu jox ñu suñu gëdd bu lu mel ni amate ñu yebal personnel bu rëy ci état bi mu ñëw terre ko ànd ak ministre yi ñu xam ne Sénégal am na ndam ci bitim réew. yawma nahshurul mut المتقين إلى الرحمن وفدا